leen ak jàmm mbokk internet yu partout TV comme niñ koy faral di defee rek di leen di wax ngeen di wéy di abonné te ngeen di resté clé câble ngeen di bës bouton j'aime bi dina ci am solo bu baax a baax moom maître Ngagne Demba Touré nag mën nañoo jàpp ne ba tey bàyyiwul lii di combat bi ndaxte depuis boobu mi ngi lancé li nga xam ne rek moom mooy ay appel rawatina nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jeunes yi pour nag massivement ñu dal di bañ noteel gi nga xam ne rek moom la ñu daal di nemmeeku depuis mois de mars yi rawatina nag euh, nguur teg loxo gi nga xam ne rek mi ngi koy teg loxo ay détenus politiques yoo xam ne euh, ñu si bëree bari mën nañ defu ñu lu tax ñu di leen di jàpp ku si mel ne Lamine Niass mën nañ cité naka si euh, ku ci mel ne Cheikh Bara Ndiaye Pape Alé Niang mi nga xam ne ba mu génnee yàggul ak yeneen i détenus yoo xam ne ba jamono bi ñuy waxee ak yéen ñu ngi ci biir kaso bi loolee nag war a dakk ci réew mi di Sénégal ndax injustice bi nga xam ne nemmeeku nañ ko dafa nekk loo xam ne lu leen naqari lool komba ak na yo koy euh, mënee loolee nekk li nga xam ne rek moom moo gën a fës ci euh, ki nga xam ne rek moom mooy euh, Cheikh Bara Ndiaye ak ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko.